yàgg na Ablaye mag la Ablaye du am troisième mandat mag la topp ko ba bax ki démba Ndiaye Alioune Badara Cissé toog ci té télé bi ak journaliste boobu rek di wax naan Ablaye bés tu deewee kan moo ko wax ne Ablaye dafay dee li ma ko defee laaxu tojal bi dina xam ne am nañu cosaan am na soow am na vermicelle am na batanse am na suppu suppo mi tuutu jënd nga ceeb ba yéen fii delloo ko delloo ko delloo ko ceebu Macky Sall di dugg sama tax delloo delloo delloo delloo ko ceebu waalo du dugg sama tax ma ne delloo ko tuutu dofuma delloo ko. bu parfumé lay lekk ceebu waalo sama yoon nekku si Macky Sall lu mu defar du ma ko laal demal ceebu waalo fay bu dee ma la du doon ceebu waalo bu dee Macky Sall rek ceebu waalo du dugg suma kër jëndal ma ceeb parfumé bi nga xam ne moom la ñëpp xam mu naan ceebu waalo jànq yi dañ leen di yónni ñu ëppal ku la ko jëndiloo fleur bi nga doon laajte woon naa fi yëpp. ana nebedaay bi nebedaay baay bi. jox ma jox ma jox ma ceeb bi ma foon ko ndax du wàllu. déedéet parfumé. 100% eh. ceeb bii moo woo. bii de moo ceeb bii ne la suñu biir yi tàmm. waaw waaw bii lañu xam. bii la ñu xam bés bu ma lay déggee nga wax ceeb bu wàllu sama kër ci sort de ma maison. dootuma ko waxati. njàmb ci demal tànn li des. fleur yi dama koy sooxaale après après nga utal ma crédit nga wax kii Pierre ne ko oto bii dem campé fële rëbës pour yàqu Karim bi na préparé tuuti yii tuuti xam nga lu ma fàtte petit euh, euh, bu xam sa bi oui waa PDS ana ngeen léegi mu ñor bu leen bougé bu leen dem fenn dama ne di ngeen lekk ba pare ñi sant Sall ak ñi sant Faye laa koy sarax séeréer ak tukulóor laa ko tojal ana paaka bi gaawal gaawal mu ngi dar Ablaye Wade mi fi jógee la ndox mi gëj a ñuy wax nga naan ceebu walo ngi bàyyi ba nga waale ko fi rek i i kenn du ko wis ni toow si yaa ngi yàq dëkk bu neexul ci jamonoy Ablaye ngay tuux waaye lii jamono bi kenn du tuux foral pepp yi foral pepp yi dëkk boo xam ne ku lekk du suux ku xam sa bi ak vermicelle bi ak araw bi ñoo dagi yow wara saax yaa ngi tax xam ti ko Ndeye Guèye Cissé moom tamit ak Aïda Mbodj ñëpp dinaa leen yàqal. xam nga ma jaaxal bu njëkk ba bu moom. Macky Sall. <laughs> mais madame la wala mbaxal. laaxu tojal. ah d'accord. eh gis nga couleur bi. photo ko. photo ko jëlee sa appareil nga foto ko balaa muy daax photo ko photo ko gis nga téex bi nu mu defee ci kaw kay ñamal <laughs> mu ngi daax du mooyul du mooyul kenn du ko gis ëlbatikul ñamal tuuti ci tiir bi mar laa wax kan la fii du kër Macky utel eh, ndox nga ci ban ceeb la encore parfumé bi la ban parfumé bu waalo du dugg sama kër de. madame waa service d'hygiène ñu ci biti. nee leen ñu jàll fële. parce que xel bi xeeñ moo tax daal toog leen xam ne dëkk bi léegi gàmmu yi ak màggal yi rek la nit ñi di wane gàmmu ak màggal rek la nit ñi di wane bu Cheikh Béthio wootee ñu dem bu yoonu Serigne Touba wootee ñu dem Tivaouane la même chose même Louga sax am na gàmmu. wuyu ma yii xooñ na xooñ na albatikul albatikul bu ko xool albatikul wàññeekul yii indil nebedaay bi déedéet déedéet yii Babacar seetaan na rek lii moom boo ko lekkee boo demee Saloum man ne ko ci benn yoon say liggéey dafa yéex torop mbuum la albatikul albatikul bul ko xool wàññeekul toogaat ñamal dinaa la xëy di ci ñam bi. ñam bi daal lu ma neex la rek. muccul. neex xoxom. jàppal xaju leen dina gën a baax ak góor gi dina neex li ñu naqari dañ la gisutoon bi la yàlla andee féexal nga réew mi xéwal la nii naataange ñu nii ak góor gi njëriñu boo xamoon Sénégal fi mu jaar ba yegg si fii tey war nga gëm ne ñu góor gi dañuy ci ngoy cong nga ñun bu biix nañu ca jot góor gi dali ñu naan mag la manul wax ju yàqu la mu ngi def lu ndaw li manul mag ay mata bàyyi ci réewoo góor gi yéex nañu ca jot góor gi yéex nañu ca jot góor gi dali ñu dañ ko daan di ngët naan góor gi nitu ay la mu ñëw di fay ay ak a jéggalaat Darfour Guinée Bissau Madagascar Côte d'Ivoire ba Casamance adduna bi yëpp jóg di seede laay bu di jàmmam woolu ko mu ñëw sargal ko prix ouvert waa ji fii firndeel ko góor yéex nañu cee jot góor nañu cee góor gi dolli ñu yite dafa métti ci nitu di yàkkamti nen doo ko jëriñoo mukk te tojuloo ko sot ca yaa ngi nii foo jaar ci réew mi teg ci sa bët weddi gi bokk ca ku gi yéex nañu cay jot góor gi yéex nañu ca ba ngay ndaw xale boo ko di ko aar yar ko jàngal ko yaakaar te tuuma ci ngi nii te lépp ci day pexe la xale yi bu ñu màggee tutu bul taxaw dima ma nit buy togg kenn du ko taxawu nga mel ne faatu nii rek jàppal nii xaar leen tuuti xaar tuuti toog leen ci salle bi defal ndox tuuti doon yi doy na ah day lor ñu suukar ko. lépp day euh, saf rek laaxu tojal sama borom kër yàlla dolli ko fan bu gudd comme que dolli wuñ ko troisième mandat ñu dolli ko fan bu gudd kay dëbb ko mel na kuy tëgg jëmbe wan ko ginnaaw balbatiku ñaamaan suukar bi saaf na ñoomu kay baa ngi nii hmm. <laughs> j'ai gagné j'ai gagné dama koy dëpp bul dëpp nabedaay bi yow tamit dëppal carotte bi ñamal ci karot bi ñamal ci carotte bi

defal ceeb après jiit ah. yal na sarax bi barkeel après yàlla yokkal ko fan bu gudd topp sama jëkkër gi naan bu deewee Macky Sall lu muy def mel na que yàlla mooy wax ni muy njëkk a dee muy njëkk a d'avant. doy na defal abal abal waaw na toog xaar dañu koy njëpp. voilà jean Massou Madeleine Sophie Bernadette Olivier décembre novembre octobre juillet août avril janvier janvier janvier dooleel dooleel dooleel kii bi bi ah. voilà hmm. ñamal utal ma ndox nga raxas rajo bi dooli farine bi doy na doy na topp sama borom kër gi rek dinañ ko jëppee kay mu paree xam ne lépp dëgg la rajo bi ndax ci nañuy tàggee ci nañuy defee lépp seen musiba yi indi indi ndoxu bi képp kuy wax ci rajo di joxe information yàlla bu joxe information bu bon ci Ablaye amul pile du wax waaw loolu la waaye lii def ma sonal sax ñam ko ci day gën a sax rek te yow sax da nga am xam-xam de gis nga lii multicouleur la gàllaaj la <laughs> gis nga pex waaw pex gàllaaj la di gàllaaj la de te bant la bant ak peme ku weddi laajal pex bu xaar kaani sew bi la dool ndox nga may xool rek i albatikul albatikul albatikul bul ko gis léegi nag préparé woote sarax bi te nga ne waa PDC ñu toog raxas seen loxo Babacar ay ca ñëw ngeen raxasu ñoom ñëpp nañu ñëw raxasu ngeen yàkkal ñépp ngeen dem RFM Mamadou Ibra Kane ngeen yàkkal ko waa rajo yi bu leen fàtte dem fële xale yi nekk fële euh, rajo bi Bougane Gueye Dany Youssou Ndour Sidi Lamine rajo yi gën a mag laaxu tojal bi dinañ gis Ablaye ni ñu ko gisee dañ koy bàyyee ku xam lii ku ban togg la ku ku mënul xam togg bi mënoo xam ban bés la fi Ablaye di waa ba gis waaw yàkkal yii tutu ñamal bi yàppu àll la yàppu àll ndimb saalum saalum yi ño ko xam ndimb dafa baax na day faje day faje bi ëpp li kay tout est ngeen ñam waa PDG la boo ko ñamee di nga tax xam te ku ñamal seet. Eh. madame Viviane. yow soble bi soble bi a ngi nii. boo ko ñamee di nga soble bi ndax tasu. oui. dafa tàng. ci soble bi nañu war a seetali. Ablaye Wade dinañ ko bàyyi ci nii tey seen làmmiñ yi rek di wax Ablaye guddeeg bëccëg Karim guddeeg bëccëg sarax bi bu génnee ci loxo yi lépp leer. bilaay waa PDS. déedéet déedéet baax na ni. Ablaye waa du dundal lii mooy laaxu fajal dundal dundal ba samay di baawaat fajal. laa ko fajal mi pare na ne laa ko fajal kër ma dikkee ñaa jox leen. taalibe bi taalibe utal ma ñaari taalibe bu sant Sall ak bu sant Faye ak ku sant Cissé bii na dem Zik FM ak Sen TV bu wal fajiri anamu ndabu wal fajiri déedéet ndabu Sen TV moo nekk nii ci buggaan ndabu wal faj parce que journaliste yi ñoo ñuy jàppali. da nga kon nag ñi ëpp ñi ëpp leen defal. kon ndabu TFM yokku ko. yokkal nga bu TFM bii na dem ci Sidi <laughs> bii dina ko xam Sidi Lamine xam na ràcc dellu laaxu saalum la am na ndimb voilà ah, bii mooy dem seen TV ah ko journaliste yi lekkee rek incha allah lu baax rek nañuy dégg ci Ablaye xam naa bii dem seen TV borom Lamine bu rëy bi ki sant Aïda ki sant Aïda borom Lamine bu rëy bi ki sant Aïda xam naa bañul dara noonu la mënee wan na kooku moom sant bi moo baax waaye wan na rek lay def ayca yóbbul ma bi waa fan la bi yóbbu ko Walfadjri après nga ñëw nag ñu jox waa PDC ma dolli rajo rajo bi mooy tax xibaar yi du jot fenn du ko jot wool waa PDS yi ñu ñëw nañu ñëw lekk ci ah, ñoom dañuy ñëw jiiroo fii rek ñoom xam ne xam nañu laaxu tojal waxe saa ñuuli yal na Ablaye gudd fan li ñu koy yéene ci lu dee ñu ko koy yéene loolu baaxul ay ca Babacar ay ca yow moom xam naa lii du lu lii ah, du bees ci yow ah, ku nekk kuddu rek am nga foo def fii ngeen di lekke waa léegi dañu koy ci benn bool ñu dem ci ginnaaw lekk kii maa leen tiibal ci carton da ngay bënn rek muucu acca demal ah. bëcc moonu bëcc muucu rek bëcc muucu xaaral yow moom gayeen nga sa digganteeg Ablaye gis naa li nga ciy def yépp bii pour madame la bii pour sa taaw bi bii pour yow bëcc muucu bëcc muucu gudd fan wér gu yaram bëcc muucu ñaan nag xam nga li ngay ñaanal borom kër waa TFM <laughs> TFM wan na rek na ñuy def ko ko ko ko jox ah, ah, TFM de balaa ji ah xanaa jaaroo ci porte bu mag bi bu la Père Assane doon gisoon du egg Père Assane fii la nekk gendarme la lii ma togg ñamu taalibe la parce que il faut ma expliquer nit ñi li tax ma togg ko parce que lii bu ñu ko waxul ni ñu bëri du ñu ko xam taalibe bu na lekk suppu kanje def ci ceexe def ci ceeb def ci maafe te dara du ko jot ndax taalibe dafay lekk ceeb léegi ñu fekk ko dolli ko ceexe def ci soow ak laax mu lekk ko te dara du ko jot ku weddi la teel ki nga xam ne moom mooy moo sant mbuub te nekk CCBM wax na yàlla yonent bi taalibe yi ko kii dañuy lekk lépp loo xam ne day ñëw parce que barke moo ci nekk lii ma togg nii pour tojal nit ñi seen làmmi ndax Ablaye tamit mag la guddi ak bëccëg Ablaye Wàdd mag la mag la ba kañ nit ñi ñu ko yéene de pourquoi yàlla mooy rey xale mooy rey mag Alioune Badara Cissé li mu wax baax na waaye waru ko wax ci kaw léegi nag toogal wan ma ak yow wa toogal ba mu jeex góoxal waaye yow lekkal kat ku woote saaxax gi tutu way yow eh, tutu lekkal nga ne indi yéen waa Sénégal yéen ñëpp ku seytaan ak ku seytaanul ku ñu ko nettali yéen maa ngi leen di lekkal kon ni ko Tunkara bi 2S nekk di wax lekkal naa diw lekkal naa Thierno Sama Sall lekkal naa Serigne Mbaye Sy lekkal naa Serigne Mbaye Sy lekkal naa ñëpp bisimilah